Cheikh Asbarham borom li jaaba borom yàlla nañu yàlla may yàlla waaye dama cee boole ne borom réew mi. <laughs> macha allah mais Cheikh bi tey révélation yu doy waar. Hmm. askanu senegal di xaar. ah. la ilaha illallah. bismillah. man de bu ñu mën naa dégg ay sëñ As. wuyaay ah, Lamine daal man ah. daal tey moom. xam nga fan yi paase. mooy dañu toogoon mais la Sénégal dafa tàng. jër bi paase ma ne la Sénégal tàng na deewu ndaw yi. Hmm? ay Lamine. ay sëñ As. dese ndaw yi bëri nañu. mara di na àjjana mais Lamine. Euh, dëgg yàlla j'aurais préféré euh, quoi. <laughs> j'aurais préféré de ne pas avoir raison. <laughs> la tax ah? waaw. Euh, day dafa métti. j'aurais j'aurais préféré de ne pas raison. ndeysaan euh, parce que waaye loo gis rek ngay wax sëñ bi euh, mënoo ci dara. wallaay day ñëw mais daf dafay métti parce que bëgguma di wax dossier. bu mag ñuy sulli boo xam ne waxoon naa la ko. l'histoire m'a donné raison. am na loo ma ci junj de. may la nit ku ñu xam na ma ne ba ci biir wax ji may la. tëj leen seen buntu kër yi. agression yi dañuy dugg ci biir kër yi wax naa la wala waaw ma xam maa ko bi passé. waaw tëj leen fii ba tabaski ba tabaski passé. dama gis agression yi nit di dugg ci biir ray yi bëri. dee ndaw yu bëri wax naa la waxuma la waaw may la dinañ dugg ci kër yi tëj leen buntu kër yi. mais bii nag bii nag dossier buñ taxaw nii yuuq di jub fi ko foogewul la ilaha ñu bëri après di jéemu ci nit nan la mën a nekkee lii ci li dossier bii nii ay wala Lamine nañ bàyyi noonu Lamine dossier bu doy waar a ngi may gis te dossier bii ah fa mu mujjee ji maanaam loxo dina daj gémmiñ la ilaha illallah ñëpp yuuxu ne waaye lii moom nan la mën a nekkee lu bari dara feeñ te feeñagul ñu bari danañ waaru te waaroo guñ lu bari dana am te ñu ñëpp danañ waar ne lii mënta nekk. Eh. ay rabi ay eh, sëñ As ah, na leeral mbir yi de te leeral kii bu koy leeral dama cee gis ku ci daanu ku siiw <laughs> Lamine. Eh? ku siiw ku ciy daanu wax naa a ci jàppal ku siiw <laughs> dana daanu. dara leen gémini ay Lamine ay nit yoo xam ne danañ leen arrêté ci wax lu leen wóorul nañuy bàyyi si sa def liggéeyam. dugg ci lu leen yoon seen yoon newul gis naa ay. ñu naan leen yoo xam ne sax dañ leen di woo ay Lamine. waaw artiste bu siiw buy décédé ci problème période yi artiste bu siiw waxoon naa la fi artiste bu siiw boo xam ne maanaam dana am jafe-jafe. waaw turam. <laughs> Lamine euh, mes prédictions avérées juste. mais bii nii artiste buy génn àdduna. décédé ma ne la artiste bii moom jigéen la ngeen baal ma yàgg na di bégal Sénégal. fii période bii dafa feebar yàgg di taxawu Sénégal. waaw doon nit koo xam ne. référence la. référence la ci réew mi. di desete Sénégal yëpp ñëpp di jooy. oh. ancienne musicienne. bi góor laa bi jigéen. ancienne musicienne. waaw bu yàgg. nekk nit koo xam ne ñëpp ko xam mu doon maire mag di génn àddina. oyo. agression bu métti. ñu naan waa ñi est-ce que am nañ jom. lii am nii léegi bii amaat. bii xam nga buy am fu kañ lay doon ci biir semaine bii waaye dañ leen di jàpp waaye bi ñu leen jàppee li xewoon sa Thiès te moo waxoon la ko te l'histoire m'a donné raison. dana amaat j'aurais préféré de avoir de ne pas avoir raison à ce ko parce que xam ndax bii moom dana amaat te bu amaatee kii dañ koy fexe di ko jéem a dóor mais du dee bi yoon waaye dina ci am ñu ngi ci ciblé tudd leen ñoo xam ne. Hmm? ay Lamine. ponkal la de yoo xam ne dañ cee bokkoon ci biir. ay Lamine na ma gis Sénégal ñu bëri ñoo xam ne. waaw dañuy dañ leen di jàpp ci ay yebere. defal ma diw lii waaw loolu dana feeñ ci semaine bii nga gis ay mbir yoo xam ne dañuy yebale naan defal leen ma lii far mujj ñoom ci seen bopp ñuy mujj am problème ñu dugal leen ay lamin coog suuf hmm. coog suuf bi nu mu génne nii si seet bi benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar ñett eh yoof yoof da la wax lan yoof coog suuf sa yoof nañ mooy tudde yoof yoof dama gis ay nit yoo xam ne coog suuf dana leen kar ba nit yu bëri di ci dem prison ñu ci bari di am coow ba ñu ci bari di am ay jafe-jafe ay Lamine coow suuf dana yëkkatiwaat Sénégal ca aéroport ba aéroport bii ca mburkaat mburkaat bii waaw ah Lamine coow suuf na am ñu bari xar ay Lamine kaso gis nga dama gis sax mm-hmm. waxoon naa la musicien bu mag buy décédé mooy xale bi géey ñu yàlla yàlla Aziz yàlla ko yàlla kii amiin waay waaw kii nag dama gis nit ku siiw koo xam ne ci audit yi ma la daan wax keneen kuy dugg koo xam ne ci gouvernement bi passé nii ñëpp a ko xam bu duggee ngay gis benn benn benn ñuy toppalante par benn benn benn di dugg ci président. ñu naan kirtim nit ki. ay Lamine. waaw boo xoolee ci audit yooyu am na ci ku siiw koo xam ne bu audit jóge jógee jógee nii bañ tàmbale ci moom dana taxaw joxe alalam. maa ngi nii lii laa am mais du tee danañ ko jàpp de. ay Lamine. ay sa ñaas. ku ñuy rey keneen koo xam ne bu yegsee am na ci loo xam ne bu yegsee ci ci fee yi bañ ji revéré fee da ci kawam koo xam ne euh, maanaam nit ku jógee woon prison la rey comme li amoon fii Thiès rayaat keneen kon nag loolu mu ngi ñëw ay Lamine. Uh-huh. mariage li de neex la moom. mu ne ah waaw waaw naa la mariage yu neex yu amoon fan yi passé semaine bi teglantoo. waaw bii nag mariage yu neex kii ko koo xam ne la moom wax dëgg yàlla ñëpp ko xam ci réew mi comme mariage bi ameen euh, l'histoire m'a donné raison ci euh, rago Aziz Ndiaye bi kii nag ku siiw la koo xam ne ñëpp ko xam Euh, mu doon nit koo xam ne ñëpp xam nañ ko muy takk nit koo xam ne ñëppay taxaw tàccu ne vraiment ñaari couple yi ànd na. ay Lamine. ay nga gisaat nag accident yi di waat ah xam waxoon naa la onze mort yàlla yàlla xam la beneen accident bu métti boo xam ne camion mooy daw ba saaraan dugg oto rey ñëpp. yal na yàlla aar Sénégal Lamine. kilifa yi li ma la waxoon am na kilifa diine bu mag bu nekk Touba fan yee passé. Hmm. ngir àddina yàlla yàlla xare àjjana ah kii beneen kilifa goo xam ne la nag moom ah dina nelaw na ci nee na nawet bi dafa tàng ay lamin ma gisaat ci kaw tàkk-tàkk ak lakk-lakk. yàlla hmm? yàlla aar Sénégal ñeent juróom juróom juróom yàlla tàkk-tàkk lakk-lakk bu metti buy am waaw ay lamin bu tàkk-tàkk bi amee ba pare ci marché ba ñëpp yuuxu dañu toog tuuti rek gis ay immeuble di daanuwaat ca Dakar ak ci région yi famille lëm famille lëm toog di jooy Oh. ci problème bu justice buy am ñu bëri. am fu ñu barakaas ñuy gisaat tuuti famille lam ñëpp toog di yuux di dinaa ci gis kenn koo xam ne daanu crise crise hmm? diggante états yi ba muy daanu fii ñuy gis nit ñëpp di wax naan état état période boobu ci lay am ci Lamine assemblée euh, nationale ah gis naa nag politique bi ab changement buy am ñuy taxawaat di defaat beneen recomposition ci wàllu politique ba nga xam ne dañ gisaat beneen tournure politique buy amaat ci weer yi di ñëw. ndeysaan ay Lamine opposition bu bees bi am ak nit ku nekk ci wàllu politique di wax wax ju rëy ñu koy jàppaat ay Lamine. Mhm. boo xoolee ci kaw parti pouvoir bi ngay gis nag lu bees tàq loo xam ne dana am ci daje bu ñuy am mbooloo mu bëri. dafa taxaw ba ñuy gis nag benn genre. démarche bu am solo boo xam ne danañ ko teg ci biir waxtaan boobu. Hmm. amee dana jëriñ Sénégal yëpp. ndeysaan daara ne yi waxoon naa la ko wàññi de. wàññi nañ ko l'histoire m'a donné raison. dinañ wàññiwaat yeneen yoo xam ne ay yeneen forme la du lekk nag mais yeneen feesu jëfandukaay la ci sénégalais yi. ay lamin ay xoolaat ca kaw di xool ci suuf di gis nag taw bi. muy doy waar lool waat lool ñu yaakaar jeexoon na muy defar ravage waxoon naa la ko de. taw bi l'histoire m'a muy defar ravage ci région yi waxoon naa la ko de ci fan yi di ko gis nag muy commencé daaneel kër yi ngelaw lu bari feeñ leer nañ lu bari di am ci taw bi ak ay jafe-jafe ci am ba ngay gis nag ay mbir yoo xam ne ngay gis ne dañ ci dañ ci loru nañ ci dese ay Lamine muy tëj nag di jeexal ne kii footballeur la bu mag boo xam ne waaw dina defaat exploit ci àddina bi bit benn footballeur Sénégal di kii oh. ñuy taxawaat di beneen nit ñu koy jël di ko signal contrat te man may doon koo xam ne man maa koy njëkk yëg ci Sénégal ba nga xam ne kii bu ñu ko defalee contrat bii àddina yëpp nañ kii di Sadio Mané bés tàq eh ñu koy gisaat Sadio Mané bés tàq musicien bu mag boo xam ne ci réew mi. waaw def concert bu rëy ñëpp di tàccu. coom may gis daal ay lu mel ni ñun nit di nelu daal nelu. yéexee <laughs> bëri yi na xoolal moo ngi nii. concert bu rëy ñëpp tàccu ñu gisaat beneen wuykat ci bu bees peq boo xam ne. concert nel concert ñëpp taxaw na di tàccu mu doon lu leen lañ ay lami nag ngay gisaat nag beneen mbër moo xam ne. waaw fan yi na am kon benn contrat bu ñuy signé. waaw ah. bii moom bu taxawee àddina yëpp nañ kontaan ndax dafa am beneen mbër bu yoo xam ne na am combat boo xam ne àddina yëpp lay neex ma tëjee ko nag Lamine ah Lamine. ay sëñ As Barham dëgg yàlla nag moom. mooy moom doy na waar nag. kii de moom nit koo xam ne la ku siiwloo si réew mi ñu dem ba di ko yóbbu kaso. la ilaha illallah. muy daanu crise ya di génn àddina. oh. nitu bu mag ci réew mi beneen nitu politicien bu mag. ci beneen réew. di na àddina ci bitim réew ci feebar bu métti oh. ñu tëj ko nag ci nit ku siiw koo xam ne ñëpp xam nañ ko waaw ci réew mi waxoon naa la mbër mi de mbër mi gaañu li suwaama da kii nag moom ku siiw la ko ñëpp xam la àddina bi yëpp xam ko ci réew mi muy feebar dañ koy évacuer urgence hôpital France bu demee day dee wasalaam yéehé laa ilaha illa allah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li tax ñu koy anticiper di ko wax mooy xam ni waxewul ba kanam waxewul li ko soob waaye dafay wax li mu gis te li ko suñu borom wan ah mën nañ ni mooy liy am war nañ koo mën a gëm ndax da ko def du benn du ñaar du fukk du ñaar fukk du téeméer luñ mënta konte la saa su génnee wax lu ñuy teg suñu bët kookee bu yàggee ñu ni ko loo doon ay waay sëñ bi wax ñu loo doon mais cheikh bi maye ah mënuñoo nekk mënuñoo dem tëj te waxte te waxtaanee wuñ ko yàlla dafa am ñetti junne tur jël benn junne bi jox ko garab yi euh, jël benn junne bi euh, séddale ko maanaam euh, maanaam ñi ñi ñi àndoon na moom malaaka yeeg benn junne bu des nag mu jël quatre-vingt-dix-neuf tur yi jox ko Muhammad diineem gi li des ci diine ci yeneen tur yi mu séddale ko ñi nga xam ne ñooy diine yu jiite Tawreet Injiil Zabuur ñetti téeméer ñetti téeméer benn tur bi nag mu nëbb ko ci ismul azam nëbb gi mu nëbb tur boobu si ismul azam nag moo waral garab lu tax ñuy war di si gën di wax garab goo gis dafa am turu yàlla garab yi dafa am sant ñas am ñu sant lëy am ñu sant puy te garab yooyu mag ñi moom rek lañ yoroon bu nekkee ci lañ daan saafara jàngoro yëpp problème yi am tey mag ñi dañu daan jël garab rek gas ñaari boroom xam-xam suul bàyyi dem dëkk bi na tekk garab oh. kese garab waaw wax lu ñuy wax ëf rek suul loolu xam-xam yooyu ñoo ngi fi sëriñ ñi nañuy gën di ko wax xam-xam yooyu tey laa bëgg génnee kaaraange. Hmm. génne ci garab yoo xam ne ay kaaraange la yoo xam ne nit ñi danañ man di ci sukkandiku pour man di aar seen bopp. ba mucc aar seen njaboot ndax ñëpp tiit Lamine te tiitaange gi dafa war a dëñ. waaw Lamine. waaw gis nga boo xoolee garab gii ma lay ma lay ma lay waaj a jox nii. bi mooy ban ah? euh, dafa doy waar. kii mu ne xancu ngi gis xancu ngi gis ngi gis dafa baax ci seytaane xancu ngi ngi gis waaw boo ko jëlee ni mu mel nii xanc bi nga def ko juróom-ñaari xancu gis waaw fexe ba jël ko gas ba mu xóot suul ko ci bërëb kenn du fa jam doomu aadama saytaan du fa dugg xancu ngi gis xancu ngi gis dafa baax ci saytaane baax ci rab même boo koy sangal say doom sa rab du leen jàpp ay affaire faru rab ak yooyu mm-hmm. maye naa ko gratuitement tarkal la waaw euh, bii nga gis xam nga ban garab la kii la wax Fodé Jekka Jekka. xoolal garab gu tudd Fodé Jekka. waaw waaw doy na waar garab gi moom bambara kii dafa doy waar ci wàllu nit koo xam ne biiram. waaw dafa setul mu bëgg biir bu set jigéen ñi. parfois ñu am ay jafe-jafe ci wàllu biir góor goo xam ne biiram day far di métti lu bëri bugg raxas biir bi foo de jekka bii lay jël mhm. baxal ko di ci naan lu bari di si sangu ba tey ma appuyer ci wàllu kaaraange ci ci nit ñi parce que boo xoolee kaaraange dafa war a am ci réew mi bii la wax reenu caxat caxat boo xam ne dafa sax ci biir armel caxat caxat am na mas naa ko fee toj mais bii caxat dafa différent ak caxat yooyu ndax caxat bii dafa sax ci biir almel am na ne garab bu demee ba sax ci biir almel dafa amaat beneen feeñuwaay bi muy amaat. boobu tam feeñuwaay bu amoon bu nekkee ci. almel poftan sax bu nekkee ci biir almel geneen i poftan lañ koy. considéré boo ko sangoo léegi léegi léegi sa liggéey bi ñu la def léegi poftan ci almel nii nii. waaw nga sangoo liggéey bi ñu la def lépp day toj maye naa ko gratuitement. lay lay boo ko booleeg ndoxu géej a. lii mooy xam-xam dañuy laal rek nga dem nga développé. <laughs> très bien oh, oh, ngay gis mooy gis ni moom mooy gën gi dëkk gën gi dëkk de titee ko gën baax tamit ci wàllu maanaam nit ku bëgg maanaam lu muy lekk di rees hmm. maanaam deretam di circuler <coughs> na ko jël moom problème de gestion incha allah léppam dina dox lamine bii xam nga lan la mooy ban kii mooy reenu maanaam makel gis nga bii waaw mooy ñi nga xam ne nag dañoo bañ ku leen jàpp sama genre gi gis nga bii boo ko yoree maanaam reenu maanaam makel bii mhm. nga jël si benn lu ndaw rek takku sa kii kenn du la jam ci paak wala jaasi. ilaaha eh, illallaah may ma ci. <laughs> xam nga lii dafa doy waar. waaw eh, maa ko yóbbaale sax <laughs> ren gi waaw waaw. <laughs> yóbbul boobu eh, may la. ngay gis nag baax ci fii ñu toll gis a jaan. waaw. tey boo leen toogee di waxtaan yaa nit kii jaan bu ñuul kukku la. ngay waxtaan ak jaan génn ñëppay tiit. bi lii doo ko tiimale côté bëri. te lii. dafay dafa dafa am. secret te lii bopp yi la nii. bopp jaan kese ngi nii jaan. bopp jaan bu ñuul. tey bopp jaan laa jaan laa noonu génne ci émission ma xam ne comme situation doy na waar tey liggéey bëri na. waaw ma génnee benn bopp jaan rek boo xam ne dama ciy leeral. tey li mu ci waroon leeral ci jaan waroon génn. tey émission bi ñëpp gis. allahu akbar yàlla def nag comme day xaw a doy ñëpp ñëw. waaw ñëpp ñëw sama. tey ma génnee bopp bi rek leeral. kii dafa gaaw ci delloo liggéey. gis nga boo jëlee lii nga gis nii bopp jaan bii nim bu ñuul kukk nag xaw ma jaan bu beneen couleur ñuul kukk waaw nga jël ko nga nga nga nga weer ko ba mu wow nga dëbb ko ba mu doon sunguf boo ko boolee at xaatimu Souleymane hmm. nga jël xaatim bind ko juróom-ñaari juróom-ñaari façon xaatim Souleymane moo am waaw nga bind ko rek nga jël lii nga xooj ko ci xaatim Souleymane bi waaw nga sango ku la liggéey mu dellu ci moom <laughs> juróom-ñaari xaatimu Souleymane may naa gratuitement même sëriñ yi ñu jël jël ko bind ko juróom-ñaari façon xaatim Souleymane yëpp rek nga jël nga boole ko ci même affaire u jin nekk ay nit ku ñuy tooñ du la mënal dara. la ilaha illallah. bu la tiimee wala mu jéem laa lekk da ngay wax xat. ci moom ci moom du la mënal dara te ku la ah, liggéey de delluwaat si moom may naa ko gratuitement. ñu dem Lamine bii xam nga lan la am. mooy bii nag mooy reen bi ñoo reenu dalfe. <laughs> dalfe dalfe mooy kaaraange la xam nga yii may wax nii. xeet yi du ñu dama gis ni tey da ngaa insister ci kaaraange. <laughs> trop trop trop trop parce que li tax mooy. Sénégal daa mel ni da ngaa xam fi réew mi jëm. dañ may woo dina am dañu tiit sëñ bi ñëwatuñ génn guddi. Oh. il faut nga maye yi dalfe pour nit ñi man di xam. Mm-hmm. bii boo ko boolee xasum xay dalfe bii. reenu dalfe. nga jël xasum xay nga boole koog moom nga jël xasum reen nga boole koog moom at xas xasum ngi gis nga boole koog moom at euh, senjen nga boole koog moom. mën naa refee fii limal fukki garab wala fukki juróoma garab yoo xam ne yëpp ci kaaraange lay dox. la ilaha boo ko baxalee nga sangoo ko mën nga dund dund ba ba sonn doo mës a gis ku la tiital. ay coow nii doo ci bokk. kenn du la tiital. parce que toujours ci kaara nga de bu fekkee nag boole nga ko lii ma lay wax yaa daan fi xaw 555. waaw nga jël li nga xam ne mooy reenu. Euh, reenu dalfe bi euh, reenu xay reen bi. waaw nga jël ko boole ko 555 yaa daan fi xaw 5 50 500 nga koy wër di sangu di wër di sangu ba mu mat 5 jours yi wallahi la si bu la neexee fanaanal si mbedd kenn du la laal. loolay beleen de. bu la agresseur gis agresseur gisoon nii ngay dox sax. du ñemee jël paakaam wala daraam di la laal parce que tellement que cëram ñëpp day dam oh kon loolu kaaraange la yaa mujjuutu nag moom laay tëjee nag moom laay booleeg ren kii bi nga gis nii xas bi xas bi la ñuy wax niptu xasu niptu boo ko booleeg nag maanaam yaa mujjiitu niptu bi nga boole koog moom di ko wérd maanaam 16641 yaa mujjiitu bul tayal waaw waaw xam-xam boo ko boo ko bëggee ko jar boo ko jëlee di ko jël di ko naan di sangu di naan di sangu di naan di sangu ba mu mat juróom-ñaari yoon waxuma yow sax waaye fa nga tëdd yow si sa koñ bi nga dëkk tëdd fa benn sàcc du fa dugg. trottoir bi yëpp parce que kaaraange turu yàlla bi mooy dem ba wër ñëpp. waaw waaw jaamu juddu boo ko defee nag ci oto. def ko ci biir oto bi oto bi du këpp du accident. boo ci boole yaa mujj juróom-ñaari yoon dëkk boo dem nga def yaa mujj du juróom-ñaari yoon. da nga dem ba yegg ci dëkk bi bu dee avion danga dem ba yegg ci avion bi avion bi du daanu wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala baraka tey nag ci melokaan wi mu génnee ngeen gis ko mbégte ak contentement ak kanam gu nay yi la génnee ndax daf doomam ji di Sidi Diop dañ koo libeere sëñ bi njëkk koo yëg ca jàpp ba waaye bam ca defee la cay def ndale ko doxal may sa bàyyita maa ngi sa ginnaaw lool laal man a waaye foo ne maa ngi sa wet te da nga génn da nga ma fekk si waat fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaar mbokk yi nii rek lañ mën a def ànd ak mbégte ak contentement waaye ànd ak tamit frustration ci bu ñuy tëj émission wu sëñ as Barham boroom li jaaba ñaanal ko jàmm ñaanal leen jàmm jox leen dig daje ëllëg ci seen yeneen i émission jërë ngeen jëf